jaa ngeen jëf ñi topp RTV Dakar ñu ak yéen sen émission spéciale émission mu ngi tuddu zone technique ku ne xam na ni zone technique danaka lepp fa lay xewé zone technique ci le coach bi di préparer tactique bi mi joué ci le aussi ci lay défé changement am ci lay waxé ak joueurs yi donc l'émission porte le nom de la zone technique alors tey nag ñu def un micro territoire euh, spécialisé ci CAN bi ku ne xam ne tey match inaugural bi opposant Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau donc dañuy def benn tour ci koñ yi recoins yi ak coins yi waxtaan ak sénégalais yi ñu wax ñu seen xalaat ci CAN bi naka lañ ko est-ce que Sénégal day conserver titre bi ak aussi bépp actualité bi ñu am relativement effectivement à cette CAN donc dañu a ak Papito le grand technicien ñu dem ci biir interroger gars yi ñu wax ci CAN bi ci kanam gaay ak Coly euh, le grand amateur donc ba léegi ñu ci micro trottoir bi Sénégal Gambie lundi incha tay match inaugural Côte d'Ivoire Guinée Bissau donc euh, defe naa yaa ngi suivre kan bi. waaw maa ngi suivre kan bi. noo gisee préparation Côte d'Ivoire bi accueil bi ak organisation bi noo ko non, mm, organisation bi moom. bon xam hein? naa waaw ça va pour l'instant. instant quoi. ba mm-hmm. suba ba ñu ba ñu gis lan la ñu ci biir stade bi quoi. comme organisation. donc tey match inaugural bi. Mm-hmm. lan lay fàttali ci histoire kan ak yooyu.

suñu doomu ndey la. Hmm. en plus tamit bon euh, match bi du yomb daal. Hmm. waaw match du yomb du yomb. du ah? moo tax ngeen du yomb. non damaa xam ne Gambien duñu duñu si bàyyi. <laughs> waaw non ñoom. dañuy parce que métti day métti torop torop. Hmm. wax dëgg yàlla day métti. si donc tey boo nekkoon place su Aliou Cissé. Mhm. ban tactique de jeu ngay mettre en place. non tactique de jeu xanaa ma def lu wóor rek 4-4-2 rek. tegal ma 4-4-2 yi ma dégg. ma teg 4-4-2 waaw non dina xaw a jafe. Eh, mais xanaa xam nga joueur yi ngay. si xam naa eh. mais xam nga léegi ba ma tegal la Koulibaly. waaw tegal la Niakhaté. Niakhaté ma teg classé la euh, attaque défense bi. bi waaw tegal la droite euh, euh, Sabali. waaw tegal la gauche. gauche euh, Jackson. Euh, Jacobs donc bàyyi ma baal ak milieu terrain bi. milieu terrain bi kay xanaa dama si teg ay Crépin. Crépin Camara Camara. ak euh, Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr. donc droite nga ubbiloo Mané. Mané gauche point bi Jackson. Jackson waaw ah, ça a classé ah, donc score. score bi 3. 3 3 0. 3 loo gis. Gambie maa ko mën. Hmm. billaahi. ni muy bu ma ko jaabee dama koy linjaa Gambie bu ma ko waaye dama koy tas. da nga koy tas. waaw saa oh, Gambie bi du niveau waaye grand. billaahi. bi passé première participation la def dem ba dem non Gambie maa ko foo ko teg yow. maa si côté yëpp man damaa pare fépp. Hmm. billaahi. score. ah score. score. Hmm. Gambie sept laa koy dóor. <laughs> jaajëf. voilà ñu bëgg laaj par rapport ak euh, préparation CAN bi organisation Côte d'Ivoire bi. donc yo personnellement en tant que amateur football nu nga ko gisee. sama gis-gis jaar na yoon de. jaar na yoon ah? waaw sama gis-gis. Hmm. dama gëm Côte d'Ivoire. waaw damay dëgg gars di wax rek. Hmm. mais jaar na yoon de. jaar na yoon ah? waaw. donc lundi incha allah on aura le match Sénégal Gambie. waaw noo gisee rencontre boobu. ah xanaa ful ak rek. sama mbokk Gambie ñu fex leen rek. sama mbokk lan nak waaye ñu fex leen dóor rek. Hmm. Ah. waaw score ban score ngay joxe la nga leen bëgg a non 2-0 rek baax sama mbokk lan parce que ñun suñu para Gambie lañ jëg ñoo Sénégal. Ah. kon Sénégal ak Gambie. Hmm. ay ay mbokk lan dal voilà ñu dóor leen 2-0 rek baax 2-0. wa ah, ñu fekk la ci euh, arrêt sédiment bi donc tay li ñuy waxtaanee moy kan bi yaa ngi koy suivre. waaw kan bi ma ngi koy suivre ba baax. xam nga match inaugural bi tay kan kan la. kan kan la. tay Côte d'Ivoire moy ji ak Guinée. ak Guinée Bissau ok donc nan nga gisee équipe nationale bu Sénégal parce que lundi inchallah lañu def seen match contre la Gambie est-ce que équipe bi japp nga ni pare suffisamment pour battre la Gambie. waaw équipe bi mom wax deug yalla ainsi mom euh lancer bu mu nekk nii. continuité mm-hmm. continuation kese la nek quoi. Mm-hmm. ñu am nañ yaakaar bu baaxa baaxa baax ci ci si si kan bi incha allah. Sénégal moom dina andiwaat deuxième coupe d'Afrique bi fii moom. incha rabbi inchallah mais Algérie mu ngi fa euh, Maroc mu ngi fa. Burkina amuñ fa Cameroun donc lan lu moo tax nga jàpp ni Sénégal war na mën a conserver titre bi. waaw parce que lu tax ma wax loolu noonu parce que Sénégal. Hmm. groupe bu mu yor nii bu mu tijjee nii amul benn bu ko yor si benn équipe bu ko yor si Afrique. Hmm. actuellement nii quoi parce que si bu ñu waxee ay Sadio Mané ay Gana Gueye ay Pape Matar Sarr yooyu noonu waruñu xool beneen équipe fii nii. Hmm. amuñu benn équipe bu ñu war a tiit quoi. par rapport ak Sénégal. donc sa xel dal na quoi. waaw ainsi moom dal na moom wax yàlla moom dal na moom. kanam bu baax. donc Sénégal Gambie score. score Sénégal Gambie comme de suñu mbokk leen. dor 3-1 rek baax na. incha 3 ah, baax na <laughs> jaajëf waay. ñu gis ni poule bi au delà de la Gambie poule bu métti la. Gambie le ak euh, deuxième sortie Cameroun le troisième sortie Guinée. donc est ce que jàpp nga ni sur l'ensemble de ces matchs là Sénégal war ci mën non war a mën ke Ñom mu ñëw tee. Hmm. lu metti métti mais Sénégal moom war na si mën a génn. Hmm. waaw incha hmm. lu métti métti mais Sénégal. gi ñoo dàq ñoo football ëpp ñu ay joueurs yu baax bu ma ko tey si kaa football kese. Sénégal bu mu wanee dëgg. non équipe bi du ñu a téye moom. soobee yàlla. donc jàpp nga ni war na mën a conserver le titre. waaw. Hmm. mën na nekk équipe dem yëpp gay kenn benn équipe gënul baax Sénégal. ah Côte d'Ivoire mi ngi fa de. Algérie non non gi ñoo baax. Hmm. bilaahi bu yàlla. non coupe bi war na mën a ñëwaat. jom fula fayda. ànd mango dem uti ndam ah. loolu président bi wax. donc benn message pour euh, équipe nationale lan nga leen wax. waaw maa ngi ñaan yàlla yàlla ngeen ak jàmm ak salaam. Mmh. nous de ngeen deuxième titre pour Sénégal le Lyon, sa kaw sa kanam. gagné Les gars micro trottoir bi rond point Sédiment donc nekk deux voies Il faut waxtaan ak sénégalais donc Papito le grand technicien Nous ñu avec euh, notre doyen donc nous ngi lay micro trottoir ah, ça va bien télé bi RTV Dakar RTV Dakar. Hmm. donc kan bi euh, incha allahu rabi tey lay commencé à 20h on aura le match. Euh, Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau. Hmm. nan nga gisee kan bi côté organisation bi ak yooyu noonu nan nga ko waaw kan bi moom euh, ni ma ko gisee mooy concentration rek. Hmm. ci les lions du Sénégal. comme comme que ay Sénégal lañ ñu ngi topp ci ginnaaw équipe bi rek ak dirigeant et coach bi yeeg ñëpp daal waaw booloo nag mooy doole quoi bu ko gëmee comme ni nga ko defee woon rek. Hmm. football mom boko gisé euh physique la condition. Hmm. di sa gëm-gëm a koy mottali. Hmm. ak déggoo quoi. effectivement donc manko wouti ndam li quoi. comme ni ko gars yi waxee comme ni ko gars yi waxee ah, bi yone manko wouti wuti ndam li lay doon. donc Sénégal Gambie lundi la ak 14h. Sénégal Gambie Sénégal nan la war aborder match bi. Sénégal Gambie jàpp comme yeneen équipe rek. Gambie du équipe bu ndaw fi toll nii. ba foofu ak mom pare comme niko comme ni ngay paree équipe bi magi quoi. xam ne football la onze la koy def boo ko sa moom i góor la fukki fukki fukk ak benn la def ci terrain bi say moom i góor lay doon quoi. Hmm. gëm-gëm lay doon ak euh, taxawaay daal. Hmm. bañ a maye dara daal waaw vive la vive les lions. Hmm. ban score nga gis quoi ban score. Sénégal Gambie loolu mën na ko doon 3-0 rek loolu garaaw Gambie suñu mbokk lañ. Ah. mën na ko doon 3-0 rek. donc 3 nga koy may ah. waaw ah, 3 laa ko bëgg a may de incha allah. jaay sama waa ji la wax ah. na gars am na 7. dégg naa fi score bu nekk. non 3 mooy kii mooy possible bi xam nga mooy baax daal. ok aja tawfeex. Ah. jërëjëf. voilà donc ñu ngi fii ci euh, garage su Sedima bi ñu fekk fi ay amateur de football donc euh, dañuy bàyyi sama joriñ mu nuyoo waaw ñu ngi la nuyu. waaw maa ngi lay fay. donc tur bi naka la. maa ngi tudd Babacar Ndaw euh, président moto président moto yu nekk Sedima. Hmm. voilà di am kontaan bu baax a baax ci RTV Dakar quoi seen ñëw fii ci ñëw ci Sedima. waaw donc ñu seet si waa garage sédimenté donc moom euh, euh, président bi fi hein ah, donc euh, garage Jakarta ya ngi suivre kan bi. wa ma ngi suivre kan bi de. Hmm. si départu lion yeeg yooyu suivre na ko. Hmm. Hmm. waaw gis nga lépp mom gis nga équipe nationale ni ñëwé ñëwee ak culture bi ñu wone lolu aussi. waaw waaw euh, ñu ngi ñu ngi en forme quoi franchement. am naa confiance bi ma leen gisee. wax dëgg fa yalla bi ma leen gisee amna confiance bu baaxa baaxa baax di ñaan yalla vraiment ñu indi waat coupe bi rek. jaar fa ñu jaaroon quoi. Hmm. donc dañuy ñëw ci Sénégal Gambie euh, avant boobu aussi mën nañ aborder match Sénégal match Côte d'Ivoire Guinée Bissau donc tey la à à vingt heures. Hmm. bon match boobu euh, lan lay jox comme match inaugural. waaw non xam nga match ouverture moom. Hmm. Euh, surtout pays organisateur des fois day xaw a métti ci ki koy affronter. effectivement parce que pays organisateur moom. ak public bi ak public beeg yooyu. du yomb quoi. franchement. Euh, di di di ñaanal ñoom ñaar ñëpp parce que on sait jamais. ci mhm. kaan la ñu nekk mën nañ daje après. mais daal xam naa ne du yomb quoi. waaw donc ñu ñëw ci match Sénégal Gambie Gambie bi passé quart de finale la toogee Cameroun moo ko éliminé pays organisateur Sénégal bi passé euh, il a été sacré champion d' Afrique ñaari équipe yooyu war a daje nekk ay voisins nan nga jàpp ni Sénégal moom la war a aborder match bi. waaw histoire la d' parce que li tax muy nekk histoire. Mhm. Gambie boo xoolee dañu néew lu ñu participer ci Coupe d'Afrique. par rapport ak équipe yi nga xam ne ñoo fa nekk. Mm-hmm. ba pare Gambie di football ak champion d'Afrique. Mm-hmm. donc histoire la quoi. Mm-hmm. donc euh, mën naa ne mérite la pour Gambie. muy muy daje ak équipe boo xam ne tey ci cinq favoris yi la bokk. voilà mais na ñu xam ne aussi euh, Sénégal bu mu jàppee Gambie comme euh, équipe bu ndaw quoi football léegi ñëpp ko man voilà parce que man football moo tax Gambie mën a qualifier. bay dajeeg tey champion d'Afrique. voilà kon bu ñu jàppee match bi daal lu yomb quoi nañu xam ne euh, premier match comme ni ko président de la république waxee. Hmm. lu ñu soxla du football bu rafet du leneen nañu soxla ay bi yu bëree bëree bëree bëri. waaw na ko ah, équipe bi di ah, dugal ah, amul yërëm. amul yërëm ak ñu xam ne. Hmm. équipe bu mag daal hmm. na wane ne maay maay maay favori quoi. terrain bi ak ci lépp quoi. score daal maa ngi bëgg ñu dóor 4-0 quoi. 4-0 4 laa bëgg. <laughs> gars yi yërëmuñu benn yoon gàmm ah. waaw waaw ok jaajëf ñu bàyyi la ah. waaw maa ngi leen di jaajëfal. di kontaan bu baax a baax a baax a baax di profité nag di wax. Hmm. borom jakartaay nañ def ndànk si tali yi. waaw ah, surtout. jakartaay hmm. nañ def ndànk ci tali bi. Hmm. li ñuy def c'est pas normal man dawal ko tum deux roues laa mais xam naa ne daal yombul quoi. nañu def très attention parce que tali bi. yombul alors voilà donc on vient de finir le micro trottoir wax ci CAN bi Sénégal euh, Gambie ak aussi match inaugural bi nga xamante ne ni Côte d'Ivoire Guinée Bissau ñoo koy donc gis nga sénégalais ah, wax nañ score score nak xawna xaw na ah. wax 7-0 3-0 2-0 mais bon en fin de compte match le bo xamante du yomb Sénégal gami ce sont deux pays voisins ce sont deux pays qui nga ils ont partagé une très longue histoire donc un match forcément du nek match bu yomb mais dañu avons di jox rek calendrier bi nga am le 14 janvier donc tay on est le 13 Côte d'Ivoire Guinée Bissau à 20h. Le 14 janvier, on aura Nigeria, Guinée euh, équatoriale, 17h Égypte, Mozambique. Égypte, c'est le vice-champion d'Afrique. Alors, à 20h, on aura Ghana, euh, Cap-Vert. Donc, 15 janvier, euh, moi, match Sénégal, euh, Gambie. 17h, Cameroun, Guinée. Algérie, Angola. Nous, 20h, nous aura il donc a une confrontation une confrontation ko tout au long de ce micro trottoir donc nous faisons l'émission, émission zone technique le tout wax zone technique dans lépp fa fallait parce que ci zone bi ci le coach bi di taxaw di équipe bi ci lay aussi di ci lay changement yi euh, ci euh, aussi ci lay réflexion autour des tactiques nga mettre en place donc ñu annoncé euh, RTV Dakar avec le grand technicien Papito ni lañ ñukoy à chaque fois donc Urban officiel donc tout la aussi micro trottoir donc nañu jox kon dig daje euh, ci kan bi ak débrief yi nga xamné ni fas nañ ko def dëtal leen ko xamna ni vous allez forcément l'aimer parce que ay amateurs de football ay passionnés de football la ñuy dégg micro ñu waxtaan techniquement ci li xew donc Papito lañ ci àndaloon fi ci Urban Foot gars yi jëf ci kanam tuuti seen law